koy déglu ndax man su ma duggee ci weer wi mu jafe woon ci man rek maam day day daal di yomb waaw lu waaye di wut ci man mu tëgg a témbe bu ñu duggee ci weeru safar wala weeru koor day daal di yomb kon ci basmala laa ñëw la mooy bisimilahi rahmaani rahim ay njariñam téere yëpp danoo maasee wax ni mhm. iblis jooy bi ci njëkk jooy bu njëkk bi mooy keroog bi yàlla bind aadama ni ko sujjootal malaaka yëpp sujjoot mu lànk suñu borom ni ko bis ni ki tey gétti naa sa kër aljana yóbbu naa la sawar keroog jooy na ndax am na ko metti ndax aljana moo dàq sawara beneen bi mooy bi rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ñëwee àdduna yonent bi juddoo jooy na jooy yu métti ndax xam ne ni kii ñëw arrangé wu ko ndax dana xettali ñu bari te moom bëggul kenn xettali ko beneen jooy bi mooy bi bisimilahi rahmaani rahim wàccee. Mm. ndax baat bu ko arrangé wul la lépp looy def rek te waxoo bisimilahi rahmaani rahim moo xam lekk la moo tëdd la moo xam yoon la moo xam loo mën a def te waxoo bisimilahi rahmaani rahim yaa ngi iblis yenn a bokk oto bi bu dee oto yéen ko bokk te ku bokk ak moom oto lu ne mën naa xew bu dee lekk boo waxul bisimilahi rahmaani rahim yéen ko bokk bu dee naan noonu léegi nag boo ko waxee benn yoon rek moom mu daw moo tax nit ki war a am appétit buy def dara. ba ci mhm. buy togg sax lu mu ciy def rek ni bisimilah bisimilahi rahmaani rahim yonente bi salallahu alayhi wa wax na ni yomal xiyaam dana yor musuwaar boo xam ni boo ko tàllalee dana mën ni dana dana toll ni asamaan ak suuf mhm. moom salallahu alayhi wa <coughs> maa ngi jéggalu nee na yonente yàlla Ibrahima dina ko forom mu ni ko yow ni nga tedde nga yor sa musuwaar bi taxaw ci yoonu safaan wi ndax day yor asama kii musuwaar bu toll ni asamaan ak suuf taxaw buntu sawara moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent yàlla Ibrahima bu ko forom benn ko ni nga selle looy def ci yoonu safaan wi mu ne ko sama xeet wi laay do laay dogaale laay fi pour que fi nar a tàbbi ma ma tourné la neen képp ku musa wax bismillaahi rahmaani rahim bu la yàlla nangul ma nga ñu fasal la ko ci musuwaar boobu Muhammad di yor alayhi salaatu wasalaam ndax tur yàlla. Mm-hmm. kenn du ko peese. ndax dañoo wax ni boo jëloon suuf yi juróom-ñaar jël asamaan yi juróom-ñaar jël doj yépp jël mulku jël malakoot teg ko ci balance teg ci benn allahu allahu daane lépp moo tax tur yàlla lu nit ki wax ba sunu borom nangul ko moom du bokk ci jëf yi nuy xool lu nuy denc la ci muswaar boobu lay nekk. da nga ko ciy fas bind ci sa tur bind ci sa turu nday bind ci sa turu baay yonent bee koy yor taxaw buntu sawara léeg-léegi ñu àtte nit ki ba ay jëfam yu ñaaw ëpp jëfam yu baax sawara war koo yaay ñu jàpp ko jëme ko sawara nee na malaaka yi bu nu rombee yonante bi mu woolu leen bu nu jagar jagaree waa ji indi ko ci yonante bi yonante bi tàllal musawaar bi gis ci benn laa ilaha illallah bu waa ji musa wax nee na daan malaaka yi lii de jël ko ngeen dem peese ko nee na yi sax dana dana sikki sàkk ndax waa ji ni mu naqaree ni muy naqaree dimbali ak ay bàkkaaram yu bari yonent bi ni leen dem ngeen peese ko nee bu mu peesee tur yàlla woowu mu daaneel lépp waa ji dem aljana li mu bëgg a wax mooy doolee bismillahi rahmaani rahim ndax tur yàlla vrai original mooy allahu te allahu ci bismillahi rahmaani rahim la ñëw yeneen tur yàlla yépp ay mela la ay melo ay melo waaye turu yàlla dëgg mooy allah boroom xam-xam yaa ngi may dégg ay latif ay jaamihu ay xaadiru ay rahmaan ay rahim yooyu yëpp ay melo la mi ngi mel ni euh, nga daal di gis tole ni kee tole la parce que da koo gis muy defar oto wala nga gis menuisier bois nga ni kee menuisier bois la mais papaam tuddul ci turam deful ci noppam menuisier bois wala nga gis tailleur ni tailleur la xam nga melo la wala nga gis maçon ni maçon la léegi yàlla dafa am melo yooyu yëpp. Mm. mais turam dëgg original mooy Allahu. Mm-hmm. léegi nag su nee raxmaan mooy boroom yërmaade bu nee salaam mooy boroom jàmm ndax ay meloom la mais dëgg nag mooy Allahu tey nag ma indi ci secret yu doy waar. Mm. ki nga xam ni dafa bëgg sarax bu bu gaaw boo xamante ne mën naa fekk mboolem lu muy lu muy lu muy fekk. lu muy dàq waaye mën naa xëcc mboolem lu muy xëcc wala mu am façon aaju bu mu mën a aaju woo sarax bii bu ko defee lam ci yéene sunu borom dana ko ko defal balaa yàgg sarax bi mooy dangay ngay wut onze mburu onze mburu waaw mburu bu nekk nga dagg ko six dagg nga am soixante-six dagg bu ko defee da ngay am soixante-six mooy jàpp saab mburu dagg mburu bu ne nga jàng ci benn bisimilahi rahmaani rahim saraxe ko liñ ci yéene lépp suñu borom da la koy defal sarax bu yéeme la te nit ki fu mu toll moo xam muy góor moo xam muy jigéen moo xam muy mag moo xam muy ndaw maanaam as bu mu toll rek mën na koo def ku ko def lañ ci yéene suñu borom dana la ko defal ma waxaat ko képp ku am aajo ju la jaaxal nga bëgg suñu boroom saafaral la ko da ngay jënd onze mburu mburu bu nekk nga dagg ko six dagg boo daggee onze mburu yëpp bu ne six dagg day ngay am soixante six mburu yàpp sar mburu bu nekk nga jàng ci bismillahi rahmaani rahim fas ci li nga bëgg saraxe ko balaa yàgg suñu borom defal la li nga bëgg mhm. ba tey képp koo xam ni danga bind bismillahi rahmaani rahim douze mille nga jox ko bindkat yi ñu bindale ko xaw naa bari waaye njariñ yi jar na ko suñ la ko bindalee douze mille su ko defee nga def ko ci njaq njaq mooy ndaa ndaa li nag day am kubéer saafara su bari sa dangay ngay duy ndaali ba mu fees nga def ci douze mille bisimilahi rahmaani rahim yi nga bind léegi ne léegi après ndaal yi da nga koy utloo ko nga daawe takk ko bu mu dëgër ak kubéer gi nga gas ba mu xóot nga suul ko fexe yow takk nga ko ba suuf du ci mën a dugg su ko defee boo gasee bu mu xool nga suul ko nga fexe nga bàyyi bu mu am juróom-ñaari fan ci biir suuf mm-hmm. nga sulli ndaal yi kubéer gi saafara si nga sangoo ko juróom-ñaari fan danga am xaalis danga nga waaw da nga mag ñi yooyu rek la naan fajale macha allah ba tey moo ñu dese ba tey lii mm-hmm. day joxe xaalis ci yàlla tif jigéen ñi bu ñuy am tu tur yu ni yàlla yàlla si alaaji Malick na moom da cee amoon may moom daa xamoon sekkaram latif da cee toogoon moom bari na ci ay nit yàlla waaye moom moom ràññee nañ ko ci doole yi latif léegi nag yoon yoom da cee maye xaalis da ngay wut cent vingt neuf xobi siddéem xob bu nekk nga bind ci latif xob bu nekk nga bind ci latif ba xob xobi siddéem yi mat bu ko defee da ngay am cent vingt neuf latif nga tucc ko bu ko defee nga daal di wutaat ndaa ndaa ndaa su mën naa doon ndaalu ndaw nga xooj ko ci saafara boo ko xoojee saafara léegi da nga daal koy takk nga suulaat ko moom ñetti fan boo ko suulee ñetti fan boo ko suulee da nga ciy def parfum miski saxfaraan maa ul wird soo ko defee day gësëm boo ko sangoo ñetti fan nga koy sangoo day gësam xam nga gësam mooy la mm. dafa mel ni nga dugg ci garab gu naat ñu gësëm ko noonu naataange gi noonu doom yi di waaj di di wadde mm-hmm. ki nga xam ni dafa def loolu noonu la suñu borom di wër gësamee wërsëgam foofu nañ teg foofu suñu loxo mm-hmm. lii am na solo ah, bu ko defee ñu euh, continuer ko ci émission bii di ñëw mm-hmm. macha allah dañ bàyyi nga tàggatoo ak mbokk yi ah, bu ko defee rek ñu yëkkati jotaay bi waa di wax ji nga xam ni ñoom dañuy woo di ñu sant dina gërëm léegi-léegi nit dafa may woo soxna Issa ñëw musta woo sëriñ ñëw musta woo sëriñ mhm. waaye laabir gi moo tax ma xamal leen ni maye secret moom wàññiwul dara du yàq dara ci sa ci sa secret ñi ñuy jëflanteet dañuy ñaan yàlla ko aajoom na tafaju yàlla bu ñu jëflante ñun lool la ñaar yàlla waaye secret yi moom képp ku ko dégg muy kayfayaat yi leew na la doom jox nañ la ko ci xol bu sedd guyu mhm. képp koo xam ni tamit da nga cee amul lu la leer wala nga bëgg a listixaarlu say mbir dañuy woo ci 78 530 69 81 78 530 69 81. jërëjëf maa ngi jaajëfal waa plateau bi yëpp. di jaajëfal mboolem ñi ñuy déglu lépp lu ci jub rek ci sunu borom subhaanahu wa taala la waaye lu ci jubati lu ci lu ci dëng rek. ab jaam bu matadi. jërëjëf jërëjëf Kina naa merci beaucoup Aïcha à demain incha allah. non dañuy joxante rendez-vous bi okay. merci beaucoup. à demain aussi. à demain Aïcha Puntu ñu ngi lay nuyu merci à toute euh, la régie permettez-moi juste ma nuyu suñu téléspectateurs yu nga xam ne ñu ngi ñuy seetaani depuis Kédougou euh, quartier mosquée à toute la famille Diaby et à toute la famille Diallo je vous fais un énorme bisou di leen souhaiter ngeen passer une très belle journée Tata Aïcha fait un coucou Weuz delloo naa la sa antenne gars yi ba ëllëg incha